jaajëf jaa ngeen boki mbokk yi xel seen bi di seen set Youssoupha Niang mo nek ci kaddu gi mbokki nak li wolofi ni ko wolof yi lu ay di jambat dañuy wax ci li nga xamne mom mo xew ci equipe bi di FC Baol ciowli li na lol ba tax na gis nañ ne president bi xaati ak kayit ne fan yu ñu deugmal day wote assemblée générale bu ko defé ñu yeesal banqaas manam maanaam li nek ci biir équipe bi buñ ci paré nak mu démissioné wo keneen ko man na rek mu ñew yeglu lolu nag ciowlu lu fiñ fi ni moom la jur ca mbacké Baol ñu ci dalal tay ki nga xamne mom modi Mor jaaj ñu gën ko xam ci Maurice jaaj nekk manager général bu équipe bii di FC Baol Mor nuyu nan la. waaye fay. Mhm. coow bëri ci équipe bi di FC Baol ba président bi ne day démissionné képp ku bëgg na ñëw toog wuutuma coow li dëgg-dëgg lan ko waral. bon Youssou merci bon amuma habitude euh, di wax bon par éthique euh, laa mën a waxee daal. liñ mhm. di conduite bi ñu au moins sax doit intervenir mais bon mënuma laa def dara te soxla nga ay leeral jéegi bi moo tax ma man see addudaat bon coow nag euh, dina am séeki mën ta ñàkk ndaje moo gis mouvement asiatique ñun ñu ko tàmm yàgg nañoo di gis coow te aussi tamit euh, loolu rien n'est officiel parce que si suñu groupe euh, lañ doon waxtaane coow yu bëri na am na ñoo gis na ni jàpp na ni ni muy doxalee yoon

Mhm. foofu la si cadre boobu la waxee waa group bi daal. Mhm. donc si groupe la waxee ñu ni aussi tamit groupe euh, PD avenir la donc këyit bi xëy na génn na. Mhm. am na ko ko génne si groupe bi. ma naa yem si groupe bi. comme groupe WhatsApp yi am gën a xam li si nekk lépp. donc kon rien n'est officiel et puis ñu ñu ngi waxtaan. am na ñu si mag ñaa ngi si xale yaa ngi si yëpp ñu si waxtaan daal parce que dynamisme bi. bëgguñu ko yàq. waaw euh, ñu toog. on, on, fera tout pour que tout le monde revienne en bon, bon humeur. Là. <clears throat> mais euh, toog na ñetti weer wala bokk man man naa sax ñeenti weer yoo xam ne dégguñu dara ci équipe bi euh, équipe bi amul lum kaas amul lenn lum laaj du ne joueurs yi euh, lekkuñu du ne naanuñu duñ ne transport bi baaxul. non non sérieusement. dañoo jekki jékki moor dañoo jékki-jékki rek dégg benn coow ñi naan président bi lu muy wax duñu ko yëgal course bi nii mu def keroog jurbe bu ko war a defee. est-ce que mais. Mhm. loolu boo xoolee Youssou loolu ak sport ñoo ànd. Mhm. le Sénégalais en question de là n'est jamais satisfait. Mhm. le Sénégal en question n'est jamais satisfait mais lépp looy def rek def ko si yar ak teggin. parce que équipe bi euh, comme li président dañ ko fal. fal ma fal keneen fal keneen te waa Mbacke ñu fal. ñun ñëpp tamit on avait pris des engagements devant doomu Mbacke yëpp. président bi tey jii kenn du ni engagement bi mu jëloon respecté wu ko. dëgg yàlla kenn ñëmeeku da wax ne président de engagement yi mu jëloon respecté ko. Mhm. aussi président il faut que nit ñi rappelé wu ni c'est le président de toutes les mhm. moom mooy président commission yëpp te man gis vraiment comme ni may dégg naan dañoo am problème amuñu problème. Mhm. mais peut-être am na nit ñoo xam ne malveillant. koo gis am na nit ñoo xam ne mal intentionné. bu problème amee koo xam ne waruñu noonu yàpp ñu bëgg la see yàpp. yow mii daan na dal bi. nit ñi dañuy fàttali ne parfois tu es dans ton da ngay def say débat nit ñi ne la da ngaa far. Mm-hmm. te te rôle journaliste dañ koy fàtte sax ñoo yow sa rôle journaliste ngay def. Mm-hmm. loolu c'est sénégalais. Mm-hmm. mais ñun ñi gang équipe bi. personnellement on n'a pas de problème. am na ñu bëri bëggoon profité diggante président commission sportive diggante président ak diw mais y' a pas de problème y' a jamais eu de problème. te président ñu mooy li ma wax noonu nañ fàttali moom mooy président commission yëpp. c'est lui qui doit rendre compte en premier. donc il peut intervenir partout. il va. Euh, ñu te lépp lu muy def positivement la koy def ci équipe mhm. ñu seetlu ah, ñu seetlu ne fi mu toll nii fi mu toll nii nag nii nga def dañ koy rafetlu parce que équipe bi équipe bu Mbàkke gépp la des nit ñi du ñu information ba sa war buñ bëggee xam kenn du leen xamal mais tamit ñoo ngi seetlu ne ñu bëri ñoo ngi joytu ne équipe bi du entraîné nee dañuy toog léeg ba football jot rek ñu jékki-jékki kulo kulo dajaloo rek dem football yi buñ demee perte ñëwaat non a nekk mhm. c'est xam nga parfois tey jii euh, mi ngi mel ne euh, kañ lañ fubaloon euh, samedi lañ fubal. samedi lañ fubal. xam nga équipe bu bu amul condition physique bu heure bi dootu ko amati. mooy loolu mooy waral ñooy hivernal ay pré match yàlla dañoo di bëri sax nawetaan bi dafa toll rek nawetaan bi dafa tombeek heure du championnat bi. te joueur yu bëri dañu joué nawetaan xam nga joueur mënul joué nekk temps nekk forme nga xëy reprendre en charge di ko def hivernal. mise en forme da donc nit ñi dañ duñ xool calendrier bi parfois xam nga dañuy jàpp ne ñoom chaque jour dañoo war a équipe daa war a entraîné mais muscle lañ koy noppal tamit parfois dañ comprendre loolu lépp te loolu boo boo si nekkul doo xam programme coach bi doo xam programme staff bi li mhm. ñu mel day football samedi football at mercredi xam nga loolu dafa jege mhm. war a football at dimanche am na no techniquement am na no chargé ce jour yoo des problèmes mhm. donc boo xamul war a dugg ci aspect loolu moom mooy mooy parfois moo tax mënoo tamit nekk di tontu waa mbedd mi. Mhm. léeg-léeg moom. léeg-léeg tamit des fois euh, nit ñi dañuy xaw a jaaxle parce que bu nee seedee di bureau communauté directeur bi ñu toll lu tolloo juróom-benn fukki nit wala juróom-ñaar fukki nit ñu dégg ñu ne léeg-léeg sax ñaari junni yéen leen sa sol ñu ci bëri nanguwuñ ko bu doon téeméer a juróom-ñeent fukki yëpp nanguwuñ koo joxe loolu tamit ngeen di woyaale ñoom ndax ñi nga xam ne joxe tamit di leen may ci biir CD bi kàddu ñuy mën di kaas seeni droit bon loolu mën naa si wax parce que tey jii ban taxawee ñu ni seede bon gis nañ charge équipe euh, Youssouf ku la waxul tey jii football àdduna bi cher na. Mm-hmm. da lay wax waxulu la mm-hmm. football moo cher. Mm-hmm. Sénégal bi ak feneen ak feneen. tey jii euh, biñ toogee seede bi tamit def amoon nañu yéene ju baax ñu woon léegi comme ñoon le président am na charge bi jël ñoon seede bi danañ jël euh, location bi ak lekk yi. on a commencé à deux

Euh, demi tey jii boo xoolee charge jour net na mm-hmm. ci paye une location mm-hmm. dañoo joxe dépense mm-hmm. chaque jour añ reer ndékki am loolu kenn lu yomb na donc et puis boo tombé semaine match donc ce qui veut dire chaque semaine chaque semaine par exemple la dépense trois cent mille minimum chaque semaine te boo boo amee si coupe du Sénégal si diggante bi doon ëpp na lool comme tey jii donc semaine samedi lañ football amaat coupe du Sénégal euh, amaat dimanche match donc loolu boo ko xoolee financièrement ñaar te match bu ñu gañee da a primé. Hmm. mais CD bi nag peut être bëri na ñuy wax ne li ñu warloo ak équipe bi defuñu ko. Hmm. parce que ñuy wax président président mais président li ko warloo moom mi ngi koy def mais ñun est ce que li ñu warloo tamit ñu ngi koy def ñun. Hmm. critique neex na trop man damaa jàpp ne tey jii euh, booy critiquer tey Mhm. wala am looy wax yow dafa am loo xam ne da ngay def da ngay da ngay mhm, mhm. a mën a waxee mi ngi mel ne am na foo xam ne danaa bala ngaa wax da ngay fay carte membre am na ñoo xam ne am nañ pour papa boo nekk boo boo dankee bi dugal sa gib ñi war ngaa xalaataan est-ce que joxe naa adduna moo demee noonu participation comme mais bu ñu deful tamit président ne pas croiser les bras aussi équipe bi tamit am na yeneen bonne volonté yoo xam ne même bu président ñi mais nit ñaa ngi ciy jàpp. Socé Ndiaye par exemple il a pris en charge trois jours mais Brahma Mbacké suñu bër xam nañu ko. ren mu ne président mu ne jàpp il a pris en trois jours Djily Diagne. man gis naa li mu def chaque match. financièrement il dépense son argent. moralement il est là. keneen ak keneen te bu bu bu bu tool bi dañoo bëgg di Djily ak président Djily ak président ils ont aucun problème personnel problème mais ay nit nag man intention la comme je te dis ñoo bëgg a utiliser. ay riiru wala ay ay wax bala wala def seen analyse bopp conclure seen bopp xam mm-hmm. gars dañuy def seen analyse conclusion mm-hmm. mais ñi ñànk équipe bi amuñu aucun problème mm-hmm. peut-être nag ñow do mooy li ma wax noonu tey jii équipe membre ñun bi ñu war a comité directeur bi passé nous sommes soixante réunion comité directeur bi y a pas quinze léegi bu réunion bi jàll ku ne naan da nga wala nga war a woote réunion w réunion bu woote nañ ko format ko donc et puis am nañu un groupe boo xam ne tous les membres comité directeur sont ils sont ñu soog la soog suivre la wax nañu information bi format ko mhm. donc ce la ñëru mhm. am na excuse ñoo xam ne ñoo feebaram wala leen am lu leen jàpp mais am na ñoo xam tamit daal jàpp ne woon ba pare boo recruté war à zéro naan noonu nañu réunion réunion du problème éthique mhm. yow ñu naan nañu réunion est-ce que yow tey ji engagement yi nga jëloon devant tout Mbacké est-ce que yaa ngi koy def nit ñi dañ toll xam ne nit boo yoree pour mu nekk sa doo xaar man de rus naa xaar. Mhm. man personnellement je fais au delà de mon boulot. Mhm. mais parce que tamit tey jii par exemple grand cassé c'est notre secrétaire général. Mhm. gis naa comment il est chargé il à la préfecture liggéey bi mu war a def tey jii man ba naax ko siy jàppale di ko def. je suis à Dakar. mais Mor ñun ñu nekk Dakar duñu tardé équipe bi. Mor dara duñu tardé équipe bi. waaw. mais tamit kii bi nga yaakaar ne loolu tardé ko. Hmm? jàpp leen loo xam ne daf koy occupé bu baax a baax daanaka temps mayeetu ko. waaw non ngir jox ko beneen charge. waaw non loolu xam nga tey jii euh, as mën naa seede bu falee xam nga tey jii euh, association ni muy dundee. Mhm. assemblée moom mooy fal seede. Mhm. Hmm? Mhm. seede bi mooy koy fal bureau. donc tout le monde est vraiment bëri na fi ñu bëri ñoo xam ni tey ñu ngi si bureau FCB boo xam ne peut être mosoo leen gis mosoo leen dégg. mais peut être man jàpp naa ne tey jii boo doxal wala amoo jot. en immunité ya, yaa immunité ni ah man nga lii ñu ma dénk mun ko doxal buñ ko nanguut a buñ ko nanguut joxe yéen ñi nekk ci bureau bi ngeen xool ngeen ko fokkatee jox ko keneen parce que non bureau bureau bureau mun da fokkati lenn nag moo na fokkatuwaat mhm. woote waat seede bon peut être daan woote waat seede da waroon ni seede peut être mhm. mhm. mais